boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati macha allah Diop dañuy bàyyi yàlla ñu mën fay yàlla la yàlla fay ci daraje ñu Moustapha ndax euh, yu am solo yi ngay jagleel askanu Sénégal donc Diop rek nooy nekk si période sedd mu nekk benn parenthèse bu ndaw rek xam nga ni période sedd hormones yi dafay yëngu góoru jigéen rawatina ñi nga xam ne mooy jëkkër ak jabar dans les normes couple ñaata yoon war a sëy si guddi wala si semaine bi aussi tamit ñaata yoon war a sëy. xam nga euh, dafa am maanaam kuy wax ne daa am kilifa goo xam ne dafa daan def su defaree nit ba pare. naan da ngay bu daa jege mar naan tax naan marul naan naan. Mhm. ndax naan bu la daa jege soo maree naan naan. soo mhm. marul naan. jigéen moom bu la jege. Hmm. amul àpp amul heure. foo ko yëgee ak noo ko yëgee. Hmm. ndax boobaa moom su la aajowoo. Hmm. te fekk nga mën ko da war a ànd ak moom. waaye sama sëriñ lu gën si yaram si yaramu doomu aadama. waaw xam nga ndax li gën ci yaram doomu aadama. muy sëy nay gëj. loo xam ne dafay laaj énergie bu bari. ba pare olof dañuy wax ne heure bu nit ki sëyee rek day mel ni genn si moo dagg ci moom nit ki moom ni ay fanam di def heure bu xëyee ay fanam di wàññeeku te dootul dolliku heure bu sëyee itam doole mu wàññeeku te dootul dootul ñëwaat kattanam ñuy wàññeeku te dootul waaw moo tax bëril di sëy baaxul bëril di waaw dana dem ba dangay am carence en en magnésium. Mhm. ak carence en fer. soo bëree di say trop. dafay indi anémie day tax nga am euh, feebar yàq. moo tax euh, sëy mhm. da koy modéré sëy ci semaine bi. Mhm. Euh, ñaar baax na ñett baax na waaye dëkkee sëy moo bon wala sëy sëyaat maanaam sëy ba pare guddi nga bëgg a sëyaat. donc guddi si ñii dem ba ñeent ba juróom baaxul. ci benn guddi benn guddi. waaw loolu daal loo xam ne moom xale yi daan koy def. Mhm. waaye damaa jàpp ne euh, jàpp ma sax nag. Mhm. waaye lu maanaam lu la. mënta wéy maanaam sëy juróom yoon ci benn guddi loolu mënta wéy te jigéen ni xel ni dañuy wax ne ni weeni sëggee mhm. ni la xelam sëggee su tàmmee ngay ànd ak moom. juróom yoon si guddi mu dem ba defatoo ko dafay jàpp du jàpp ne doole bi moo wàññeeku mhm. mais day jàpp ne waa ji dafa am fu muy joxe doole bi yaa ngi koy wuti feneen coow coow d' accord d' accord Diop c'est-à-dire que avec modération semaine bi ñetti yoon baax na guddi benn ñaar baax na guddi waa benn doy xam nga ni tey mhm. su fekkee ne mhm. su seey dana mën a dem ay minutes yu bëri nekkul koo xam ne li ñuy wax éjaculation précoce moo koy dal. maanaam du jox du jar muy sëy sëyaat. d'accord boobaa ka ngay ka nga koy sax ci boppam moo ko du dootul bëgg. d'accord d'accord sama euh, euh, gis nañu ay études yu yu si réewum Sénégal boo jëlee fukki jigéen yi nga xam ne dañoo am borom yëpp du ñu jot seen orgasme loolu la ma ko waral góoru Sénégal moo xamul jigéen walla dafa nekk sujet tabou. waaw xam nga tam jigéen euh, jigéen ñi. li ci am mooy jigéen ñu bëree bare bëri euh, góor ñi nga xam ne euh, lañu lañu lañu sëyal mm-hmm. dañ dul xamante ak ñoom mm-hmm. benn ak day fekk ni am na jigéen ñoo xam ne itam dañuy bëri fu ñu jaar lool mm-hmm. bu ko defee dara dootu ko doy wala dootul doylu bu fekkee nag nit ki yaa ko takk mu ne xale nga njëkk ci moom mu xam la daanaka du xam sax loolu ñu naan ñàkk a satisfaire ak satisfaire mhm. boobaa li nga am da doy sëkk léegi nag nit ki moom su fekkee ne bëgg na satisfaire partenaire am mhm. na préliminaire bi yàgg mhm. te mu xam tam fi muy jaar partenaire am ndax sëy itam complémentarité la kenn ku nekk day complé euh, te complété moromu waaw d' accord. Hmm. d' accord am na solo barki démb dama doon waxtaan ak sëñ Diop euh, euh, benn ndaw boo xam ni nu muy tudd Ndeye Cuuraay donc dafay jaayee bagaasu jigéen mun ma fari que Sénégal ceeb moo fi gënoon dox waaye guddi yi nga xam ni mooy appareil yi nga xam ne jigéen ñi ñoo ngi koy jël comme awra góor. Hmm. tey ji lu si ëpp borom borom euh, jëkkër yi. Hmm. moom nuy jënd. parce que fu mu leen mën yóbbu seen jëkkër mënu leen fi yóbbu parce que ñoom nooy ñëw di waxtaan ak moom ci loolu. moom ma un la ba six vitesse bi. te yàlla xam na ne guddi yi dafa dafa jar lan moo ko waral moo waral tey jii machine boobu mën a dox si réewum Sénégal. waaw xam nga lu waral loolu góor. Mhm. góor gu mat góor. Mhm. moo tumranke sama sëriñ dégguma la de. maanaam góor so góor bu mat góor. Mhm. moo tumranke nan la tumranke nan la tumranke waaw parce que góor ñu bëri fi mu ne. hémorroïde jàpp na leen xam senegal Sénégal 62 pour cent. ci góor ñi dañoo am hémorroïde. d'accord góor ñu bëri hémorroïde jàpp na leen ba. seen awra tuuti dellu. d'accord hémorroïde dafay awra. day delloo awra góor bëri. Mhm. stress. Mhm. muy euh, difficulté socio. sociale pression sociale bi économique. ak conjonction euh, économique boobu wax. Mhm. jàpp na leen ba. talu lekk bu ñu xëyee. suñu bàyyi ak seen soxna dépense. soxna si dépense bi dina si jël dara jënd xeesal. jël si dara jënd lu lu koy may yaram. amee dégg euh, la ca des. mu def ko ci kër gi. bu ko defee di gën a am yaram di gën a am doole. Mhm. ku góor ki moom bu xëyee ndékki sax du si jaar. Mhm. añ wala su ndékki du añ day bàyyi wàcc door a reer nga xam ne dem na ba euh, am malnutrition maanaam lekkatul lekk bu baax. Ah, te bu wàccee ndaw si ne ko doo tëdd. Mhm. boole ko ay wax coow guddi gi yëpp su xaaj guddi mu yee ko na ko jugal jugal jugal kii sëy su xëyee si maanaam fajar. lu mu tel tel tel, teel dana yow ya xam tey sol ay dàllam. Mm-hmm. ba daw génn kër gi ut. léegi nag loolu bu ko nit ki dëkkee dëkkee dëkkee day dem ba day néew doole. d' accord waa néew doole yooyu nag euh, Serigne Diop est ce que tey jii am na loolu si yàlla jagleel tey ñun ñi nga xam ne sunu kattan daf see sama bopp. Mm-hmm. <laughs> sunu kattan dafa dafa wàññeeku tey Diop yan garab noonu war a mën a ñëw mën a utiliser wala yan garab tey jii nga nuy baaxee wala ku sa garab yi tamit nga xam ne dafay yokk kattan dafay dafay tax góor. nekkaat góor fan la mën amee. waaw xam nga ginnaaw conseil si ñu ciy joxe. Mhm. ndax fi ne dama naan góor moom na bëri na wàññi suukar. Mhm. daa am ñoo xam ne mën nañoo xëy naan juróomi kaas kafe. Mhm. bu ko defee day dem ba seen traite day diis. ndax dafa am ku fi ñoom koo xam ne day def heure bu waree day tukki di dem ci àll bi di liggéey. mais heure bu waree dem ci soxnaam. foo mu jaar. Euh, ndax day gëj ci soxnaam. Mm. jaar jël dara. Mm. jëfandikoo door dem ma ne ko nag lii nii. Mm. mu ma ne ko da gaañ sa bopp. ma ne ko ndaw nga te ndaw yoonu ndaw du gaaw. ma ne ko góor ba keroog muy am quatre vingt ans. quatre vingt dix ans su fekkee ne soxnaam mu ngi dund. su ko aajoo war na ànd ak moom. ma ne ko tey góor war naa am benn jabar ñaar ñett ba ñeent. yaa ngi dégg léegi nag su fekkee ne benn bi rek da koy lijjanti. heure soo waree ànd ak moom da koy lijjanti ma ko loolu mënut a. ma ne ko yéen dëkkoo leen boo leen dëkkoon kon nooy def. waaye lijjanti boobu nag moo fi moo bëri si dëkk bi. waaw xam nga dafa bëri góor ñoo xam dañu koy lijjanti. Mm-hmm. maanaam benn bi. Mm-hmm. moom ñu ko bëggee dañ koy mm-hmm. su ma liggéeyee. balaa ñoo wàcc danañ jaar jënd doom yi naan. effectivement ndox ma ñuy naan. wala sungu suñu maq. doo dugg si kër gi. léegi ku si bëgg faju définitivement fa la ma fekk say produit. waaw moom daal Euh, yaakaar naa Sénégal. moom nekkatuma koo xamante ne euh, dañ may présenté daal. dëgg ndax ñu ma jëflanteel ci faj. Mhm. yàlla dogal ñu am résultat xaw ma nu toll. macha allah heure bu ma xëyee tam dëgg yàlla. Mhm. ñoo ngi may encouragé ndax nit bu la nee wér naa. Mhm. nangam daloon na ma wér naa sa xol day sedd. Euh, en cas képp koo xam ne loolu dal na. lañ lay jox doo ko jël. maanaam euh, ay fante dañu. macha allah ah bés bu nga tàmbalee jël. Mm-hmm. loo loo néew néew kàttan néew kàttan naa de incha allah. ak lu mu lu mu tël lu mu mm-hmm. allah. moo di boroom dalailul xayraati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati